war na noo dellu sant xayrul xadime naa ahmadoon fal fil xiine dellu sant xayrul xadime xayrul xadime saxna war na noo dellu sant xayrul xadime aguna ahmadanu fal filxiine mbooloo mi góor ak jigéen mag ak ndaw ku fi nekk jógal taxaw ca kaw màggal Seex Ahmadu Bamba jar na ko ku fi nekk jógal taxaw ca kaw màggal Sëñ Tuubaa ca kaw jar na ko di leen jagal màgg sëñ Tuuba war nono dellu dellu sant xayrul xadime ahmadonu fal fil ku ko yàlla man loo bala nga toog lambal addee sëñ Bamba ñëw fekki fii sëriñ xarim ngay jox ko maa ngi ñaan ku lamb addee sëñ Bamba jox ko yàlla boo ñàkk ci dara ci barke bi sëñ Bamba ñëw leen jox ko ah, ah, war na noo dellu dellu sant xayrul xadime naa ahmadoon fal fil xiine waaw xayrul xadime sayxunaa Bakke baydam ma doon may la nu tànnoo nu yóbbal nga neel yu taaru ci diine bay dam ma doon may la nu tànnoo la nu tànnoo boo nu yóbbal nga neel yu taaru ci diine bay dam moo doonu may la nu tànnoon nu yóbbal weneelu taaru ci diine baydam moo doonu may la nu tànnoon waaw la nu tànnoon moo nu yóbbal weneelu taaru ci diine ba eh, eh, eh, sunu waaji jóg sant yàlla tey def yoone waaw gaaya ca baawan war a jóg sant yàlla baraay bi sotu li yóbbal ko jóg ku dàq kër ga muumine sënd yóbbal tey ko njëkk a njëkk fu dàq kër ga muumine ba ak danu daa dox di xëy di gontu ba dem ndar tey ko njëkk war wato ak gaali sa ba dem dar tey ko jogo warata ki gaali sa ba la asala ne wondar ray ndawal gi dootu nu buuna yaa ñu Mbakke Cheikh Ahmadu Busayri ndawal bada ay sayili xeewal ku si yat lawal gi tasanto teraloo baay faati ak may moo ne waaw te santo teraloo baay faati ak may moo ne ay kay la may doy na sëpp ngor ci bu farloo di yóbbal farloo xeeti yoo ba dadaa yille ma tuloo ki sum ya ak yille taabal gege naay taali lampi mbaa ji leene yille ma tuloo naar yaa ngi toog yaa ngi nu dendal danu dalal tagar gi tay biin biine Mbàkke toog yaa ngi nu dendal dendal danu dalal tagar gi ba yaa nu nandal yi nga feeñal yaa di mbër yaa nu tàggaleek naan ko ne waaw nga gaasi ataa yoo sa ndox meenu tàggaleek naan moo ne anu niinal kafe ki kaase ataaya kaase ataaya sa ndox meenu tàggaleek naan moo ne ba ta ajambi lembaanik ku ton ni niw wa tasaamo haragan bamba kuyal diine ku tonni ni wa tasamo warakan seku bamba kuyal diine seku didin hanukan seku bamba kuyal diine seku bamba ba ay sa nanu kañ Bamba guyal diine borom jumaa ji nanu kañ Bamba guyal diine Mburmak yaa puwaag yaa nu ko saaf boole noog sa woo jigéen ñi muurul yaa puwaag yaa nu ko saaf boole noog sa jigéen ñi muurul jërëjëf Cheikh Bamba Ahmad Kawsi Mbakke jërëjëf Cheikh Bamba Ahmad Kawsi Mbakke jërëjëf Cheikh Bamba Ahmad Kawsi Mbakke dogo nak Mbakke bal ni misikine nak Mbakke bal أما أبينا daabal ci néeg xam ak di tàbbal ci néeg xam ma ak diine cosaanoo fab nu tàbbal néeg xam ak diine xarsuni xol def ji cofeel ak miine xol di bagal ñu rey ak noone yoonu mag di aw ko yaram ndaw yaram ndaw ndaw di magal magam siyaare keneen du ziyaar keneen borom jumaa ji dagoonu ko ak balan du ziyaar keneen dagoonu ko ak du ziyaar keneen borom jumaa ji dagoonu ko ak balan du ziyaar keneen yaa nu sunu wirdo yaa nu nu doy yaa di nu doy ci sunu ismulaayi doy doy sunu ismulaayi doy doy sunu lanu xebe janaar yanu tere xam lanu xebe janaar yanu tere xam lanu teewali li lamu ni sango waay dëkk li waajib dëkk laajib waajib bu dukkoon yow ngi kumbal tey foone waaw sa bu dukkoon yow abe ko duñ jaar nee nee

dina gëm yaa du nampal sa gën yaa du nampal ambal zena du daa jox ndigal ànd ki xeer daa du simal jëre lu baax ndigal ànd ki xeer daa du simal jëre lu baax yaa du daa may naataange yaa di doxum dox yaa du tàmmal di yóole junni ma ne ko fi nekk jugal taxaw ca koo màggal sëñ Tuubaa na ko ku yaakaar sëñ Tuubaa jugal taxaw ca koo màggal sëñ Tuubaa na ko waaye jugal taxaw màggal sëñ Tuubaa yaa di pepp mburu su di tool bu du sàpp lagar dootu gàddu ay gëllu at xiyawal may may yu dàq serifi madino dinu ramal ta no fi doon وسر في مدينة يا دمي مي يتقسري في مدينة نور عملت نويدا yaa fi lu mal foorey ka joor ki saalu yaa fi jar fal qiram ya fab buusi li fi madina madina fi daak لو قوات هدم نان هدم نانو فدا وجفاك دينغون يا فدا كالو قوات وتودم نان وتودم نان يا فدا وجفاك دينغون يا فدا كالو قوات هدم وقوات حدمنا يفدا وجفات Bakken naari gànnaar maalu bakketi maalu dootu no bine bala asanari ganna yëngal na njalati maalu yoroon ismulaay dootu bine yëngal na njalati maalu naari gànnaar yëngal na njëñ la di maan ña yoroon ismu laay dootu dubbi say maqaam ak say jagle kenn ma du ko karaama ak sa kenn du ko seere say maqaama say jagle kenn mënu ko kenn boromam xam nga ilmu diraaya xam nga yaqiin bakke mbëri diiwaan te gaale wuñ la ci géew bi ko daan mbër yow nga fi mbëri diiwaan te gaale wuñ la ci géew bi bi nga daane mbër yow fi diine bari diiwaan takka àll wuñ la ci géew di ko doon bëriwum nga fi di bari diiwaan takka àll wuñ la ci géew di bakke ci géew bi rekka daane mbari am nga fi diine ya abi bul ilaaye ya dem xarit xaritam yaa dib xaritam yaa abi ibul ilaaye yaa dala yaa abi ibul ilaaye yaa dib xaritam حبيب الإله يا دبري زراعة الإله يا خميون يا حبيب الإله يا دبري تم يا دبري تم يا زراعة الإله يا خميون يا حبيب الإله يا دبري زراعة الإله يا خلال حبيب الإله يا دب خريتم يا دب خريتم يا سراج الإله يا خميون